koo daa di xam ndax mën ngaa wàcc aéroport dara du la metti ñu xool la daan nay wax na la jàllal nga daa di toog lu toll ci fukk si ay fan wala ay fan yu néew rek daa di gis jàngoro ji si sa yarama journal bi mu ñu xamal lan ñu jamono ji nag benn solution kese kese kese moo si am maanaam tëj frontières yi maanaam arrêté vol yi nga xamante ni ñooy jugee ci réew nga xam ne ñoo amee jàngoro yi coronavirus waaye nag Sénégal tant que ñoo ngi bàyyi vol yi jugee ci réew yi nga xam ne ñoo amee jàngoro yi coronavirus Sénégal mën naa nekk ci giraawal yi mën naa nekk ci musiba maba kumba gu rëy yéen kaay gi di Vox Populi ak l'Observateur mu ñu xamal lan ñu Abdoulaye Diouf Sarr moom nag daan nay wax ne jamono ji dañoo nekk ci ab guerre maanaam Sénégal dafay guerre ak coronavirus journal bi nag daa di wax ne ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr moom nag nee na tey jii si altine ji dina daal di dem nag ca procureur daal di porte plainte ñi nga xam ne ñooy fësal ay xibaar yoo xamante ni du dëgg jëm ci mbirum coronavirus yéen kaay gi mu ñu xamal lan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall daal nay fexe ba déggoo ak kilifa diina yépp ba Macky Sall nag arrêté lépp loo xamante ni jëm na ci ay événement maanaam ci ay dajaloo daaka ji Medina Gunaas dañu ko daal di dakkal ziar général bu Tiwaawan appelu laayeen yi ba si Kazu Rajab journal bi da ñëpp daal ñoo wax Macky Sall na ko gonga ba pare nag ñëpp gunge ko ci xeex bi sant mbooleem askanu Sénégal maanaam ñu wàccoo nag ak digle yi nga xamante ni nag ñu yor wàllu wér gi yaram gi ci Sénégal ñoo koy daal di wax journal bi de la Soleil mu ñu xamal lan ñu Macky Sall jël na ay mesures yoo xamante ni Sénégal yëpp maanaam ñoo ko tàccu ak ñi nga xam ne sax ñoo yëngatu ci wàllum politique maanaam ñëpp ci ànd ak kilifa diina yi école yi jamono ji daat nañ koy tëj ñeenti fan ci avril maanaam 4 avril fête de l'indépendance du ñu ko daal di amal comme nañu ko doon amalee lépp loo xamante ni ay rassemblement la daat nañu koy dakkal ba pare tamit yokku kaaraange gi journal bi de Le Quotidien mu ñu xamalaan ñu Macky Sall testé positif moom Macky ndax li nga xamante ni moom la doon jéem maanaam fexe ba déggoo ak ñëpp Macky Sall daan na koy am unité nationale classe politique bi ci yéen a kaay gii di réew mi quotidien maanaam ñoom ñëpp daal ñu taxaw Sall yéen a kaay gii di libération ñu xam xamal lan ñu giraawaaleeg ma maba kumba naroon naa am ci aéroport international Blaise Diagne ndax dafa am benn sénégalais boo xam ne Espagne la jógee bi mu ñëwee nag dafay yore moom ndeke jàngoroy coronavirus ñi nga xam ne ñoom la nekkaloon ci roplaan gi yëpp dañu leen a quarantaine maanaam dañu leen a ber Sénégal nag lu mayul ñaari fan rek am na si juróomi kaa yu yees yéen a kaay gii di réew mi ko di jee ñu xëy fekk fa ceex na bokkum la mu xamle nee na Sénégal nag jamono ji ma ngi ci risque ndax nag li ko waral mooy sénégalais yi ñoo war a yeewu ba léegi nii yeewoo ñu moom na Thierno Bocoum jàpp na Sénégalais yi seen comportement bi maanaam dañu koo war a soppi Sénégalais yi ñoo ngi mel ni maanaam dara amul ci réew mi ne jàngoro te lu jëm ci wàllum sensibilisation gi dañu koo war a daal di yokku moom mu yokk si sax ne état bu Sénégal amul yenn matukaay yoo xam ne maanaam anticiper woon na ko maanaam fagaru woon na ci yéen a kaay gii du mu ñu xamal lañu nag njombe daal njombe daal soo muy tuule nag dina am ci Sénégal ndax bëri na ay moodu moodu yoo xam ne maanaam ñoo nga jóge ca bitim réew di ñëw Louga waaye nag ci yoonu suuf fi jaar nguurug Sénégal war a jël ay matukaayam ca wàll woowu Pape Diop bokk gis-gis la mu xamle nee na sénégalais yépp ñoo war a nekk nag ay soldaar ngir nag protéger suñu réew mii di Sénégal yéen a kaay gii di mu ñu xamal naa ñu sénégalais yi nga xam ne ñoo fi nekk di jéem a dof doflu di bañ a gëm coronavirus soo moytuwulee nag li nga xam ne moo daloon Guinée Conakry ci wàllum Ebola ga mooy dal Sénégal ndax Ebola bi muy dog di dugg Guinée Conakry ñu bari ca askan wa gëmuñu ko woon maanaam doon ko fowee ba mu ray fa lu toll si ñaari junneeg téeméer ak fanweer ak juróom benn soo moytuwulee nag nag giraawaali googee mooy dal Sénégal ci jàngoroy coronavirus ji yéen kaay gi de la turbine mu ñu xamal lañu en tout cas mooy jàngoroy coronavirus ji jamono ji nag maanaam mooy jël ab dogalam mooy buum di bumi mooy wax li ñuy def ak li ñuy bàyyi en tout cas daal jàngoro ji am na doole ndax nag moom coronavirus daan nay wax ñu bàyyi rassemblement yi moom coronavirus wax ñu bàyyi 4 avril bi moom coronavirus wax ñu tëj école yeeg université yi wax ñu daal di bàyyi daaka Medina Gunaas bi moom wax ñu daal di dakkal Kazu Rajab gi coronavirus wax ñu bàyyi lépp loo xam ne jëm na ci wàllum sport moom coronavirus wax ñu dakkal ziar général bi moom coronavirus wax ñu dakkal appelu laayeen yi yéen a gi de la mu ñu xamal ñu jamono ji daal coronavirus bi maanaam moom mooy buum di buum yi las yéen a mu ñu xamal ñu Sénégal nag ma ci état d'urgence dëggantaana yéen a kaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal ñu nag mbootaay gi ëmb mouvement yu Sénégal ñoom ne mooy corridor bi ginnaaw bi Macky a ak Maroc daan nañuy tëj seeni buntu Sénégal libération ne Mauritanie moom frontière yi ñuy wax loolee amula réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu sa Italie benn fan rek lu toll si ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ci ay nit ñoo xam ne jàngoroy coronavirus ji rey na leen l'observateur ak réew mi quotidien mu xëy yóbbu ñu Medina Fall mu ñu xamal lan ñu benn xale bu jigéen boo xam ne dañu ko faa rey maanaam ci anam bu ñaaw a ñaaw a ñaaw am na nag benn sëriñu tariyaax boo xam ne moom la ñu koy daal di tuumal stade yéen a kaay mu ñu xamal lan ñu jamono ji nag waa Real Madrid ñoom kafuñu ci ki nga xam ne mooy Sadio maane lu toll ci téeméer ak ñeent ci ay milliards teg nañ ko si taabal ji ngir nag Liverpool jox leen Sadio Mané yéene kaay gii di sunu làmb mu ñuy xamal naan ñu combat bi nga xamante ni moo waroon a dox diggante Papa Sow ak Siteu coronavirus bi daan kay yàq